kon gars yi rendez-vous baa ngi noonu. kon mbokki internet yi di baax di leen ziar di leen bëggee ñu suivi sur Kewel Info di nuyu kilifa di nekk yëpp di nuyu suma sëriñ notre responsable moral bu daal di di ne yëpp. gannaaw ba ñu jógee li xam te ne moom mooy répétition Fils de Balla di ko ziaraat bu wér-wér mu nekk combat boo xamante ne euh, kii moo ko tëgg Kandji production muy le 14 février Fils de Balla ak ki xam te moom mooy Lac Rose gis nañ tey ki xam te mooy Balla Gaye numéro 2 ñëw tey assister yëpp ku ñu mën ni ndigal Thiatou Daouda Fall Youssou euh, Gakou 2 ah euh, ñoom John Kara ñoom ñëpp ñoom la joor ñoom ñëpp tey ñëw nekk ci ginnaaw Fils de Balla kon li ñuy wax l'union fait la force tey nag ñu dalal dalal ki xam te ne moom mooy ndigal euh, ngeen xam ko tamit suñu écran ñu fas yéene waxtaan ak moom Fils de Balla ki xam te ne moom mooy Lac ak ki nga xam te ne mi nga xam te ne apparition Balla Gaye numéro 2 gannaaw ba ñu waxee nag Amar Sakho mu ngi fee ci INSEPS di préparé gis nañ tamit yeneen vidéo ñu ne INSEPS la dañ lay bàyyi nga nuyoo ci waxtaan bi ndigal maa ngi lay ziar. non mais maa baax mën na mor bokk. di ziar di jox sa wàccuwaay waaw xam nga di nuyu sama gars yi fi ma fekk maa ngi leen ziar baax di nuyu sama jigéen ñaawal nii xam nga di nuyu maa ngi koy nuyu Ibou Naata sama doom ndey maa ngi koy nuyu Ndiaw xam nga waa Diourbel maa ngi leen ziar baax baax di nuyu école de Balla Gaye yëpp di nuy Père Diaw sama papa di nuyu Abdou Aziz Ala Ndiaye Baye Ndiaye ñoom ñëpp maa ngi ziar di nuyu Kanji borom état d'air di ñëpp di ziar ñëpp. nuyoo bi am na solo mais fi may ñëwee mooy Fils de ball ak ki nga xamante ni moom mooy Lac Rose ñu war a bëri la 14 mu nekk combat boo xamante ni gis nañu yéen bëgg ngeen combat boobu nan ngeen gisee ci côté préparation Fils de Balla. waaw Fils de Balla moom pare na wax dëgg yàlla xale la te yàgg naa préparé combat yu mag xam nga kon tey pour man doo Lac Rose mooy tax sax ñu ci soppi doxin ni ngeen daan préparé pare nañ incha allah di xaar josi rek incha allah yàlla may ñu mu nekk combat boo xam te ne gis nañ Lac Rose dafa bëgg combat bi par rapport ak combat bi ak Quench gis nañ ko muy contact ak ay ñoom Serigne Ndiaye ay Gris 2 Pape Ndoye Gris Bordeaux mu nekk combat boo xam te ne nee na moo koy dugalaat ci li nga xam te ne moom mooy ci làmb. waaw ah, maa koy ñaanal daal mu duggaat ci lamb si beneen combat mais bi moom yaakaaruma ko moom. ndax moo mën Lac Rose bu yàlla defee moo ko mën non moo ko mën bokkuñ sax. moo ko ëpp doole moo gën a moo ko féete xale. xanaa gisul Rose par rapport état physique. non bokkul Fils de moo ko mën moo ko ñoom yàlla rek non ñun bàyyiwuñ ba xam ñaan ñu bëri ñu soog di xam ki mën tey ñaan yàlla yàlla dafa ko cat rek ba jour ji quoi ñu gis beneen fils de Balla waaw parce que combat bi ñor nañu te xam nañ fi ko mën a yóbbu quoi. ñu gis de Balla combat bi moom danañ toog entraîné ba le fait mu voyagé ñëwaat dégg nañ sax. ñu naan Fils de Balla kontaagul par rapport ak ki nga xamante ne moom mooy moom mooy Lac Rose que ni Rose moo gën a contact dañoo bëgg a xam xëy na li mu def si mbiri kot moo jaaxal ñu bari quoi mais soir Fils de Balla mi ngi contact suba ngoon lay contact waaw. état physique am nan nga ko. non macha allah wax dëgg yàlla ñun ñii dañuy contact moom mais kenn ko si. dañuy ñëw rek pour buuxante mais kenn àttanu ko si macha liggéey na moom waaw. ba tey gis nañ ci combat bi am na ay rëkk-rëkk yu amoon ci digganteem ak ki nga ne moom mooy Balla Gaye 2 gis nañ ni Fils de Balla ak Balla Gaye yàlla def nañ ni malentendu boobu dañ na réconcilier nañu ba tey gis nañ tey Balla Gaye ni mu ñëwee doppi ko loolu nan nga ko waxoon naa si commencement ne woon naa làmb boolewu parce que si benn facette la woon quoi mais Fils de Balla ko xam-xam ne ball Gaye la bëgg ndax nit ki mun la bëgg ba tuddee la boppam tuddee la bañ Balla Gaye ki la accepté nga tuddee ko sa bopp mu lay defal lu ne ñu ànd ak yow fu ne mun la bañ mais mal attendre moo amoon rek trouvé nañ solution alhamdulilah ñu ànd di ñaan yàlla yàlla dafa leen cet ñoom ñaar ñëpp ànd bi continuer tey li Balla Gaye def man dafa ma sagal parce que démb si di ñëw nañu école ba may leen dina ñëw yàlla dogal mu xëy day ñëw pour man a la ko defal sax yàlla xam na ko dama si kontaan trop di ko ñaanal moom it euh, grandeur bi mu am ba bàyyi lépp li mu jàppoon ñëw taxaw ay rakam yàlla suñu boobu fay loolu quoi hmm. yéen ñëpp kontaan ah, gis nañ tey beneen école de lutte Balla Gaye loolu lan. waaw mais loolu moo ñu war parce que àdduna boo fi nekkee ñu lay xaar daa am na war a doxee ko te ku ñëpp di xool da jaar fu leer te comme Balla Gaye dafa yox dunk lu mu def ñu ne Balla Gaye ko def tey nii mu def rek moo ko war ñëw uuf ay rakam te xam ne ñun moom rek la am mais ñoom moom it ñun rek la am tax te bëgg nañ ko tamit quoi kon mooy ni mu def nii daal na continuer mu uuf ay rakam gérer jëliwaat làmb téye ko si loxoom parce que moo ko moom quoi. si état physique bu gis nañ ni Balla Gaye am na beneen changement par rapport ak Balla Gaye bee gis nañ mi ngi nii pare na da day entraîné ji par rapport ak état bi ñu daan gis ak Balla Gaye. non sànq kay bi ma demee ba dóor ko kuum wax yàlla li ma yëg macha allah su fekkoon ne Balla Gaye bu njëkk dama koy affronté xam nga damaa bëgg problème mais bi ma dóoree ko damaa dellu avance bi. kon gis nga ni. allah instant nii nii ak Modou Lo bu joon avance moom. bala tontu lay doon li ma gisagul nii te demaguñ INSEPS. bu demee inceste ba ñëw musiba laa ah, ilaaha illallaah du baax si non non franchement wax dëgg yàlla mi ngi liggéey xam nga fu mu nekk nag laaxatu mais mi ngi liggéey waaw état moom gëj naa kaa gis ak moom ko waaf lu mu na Modou Lo wala Balla Gaye kon li ma dafa amoon lu mu koo jël wala ndax gis nañ ne tamit Modou Lo bëree na Balla Gaye bi nga toog ci ruqam nekk jàpp si biram gis nañ Modou Lo def na benn sorte yaa oustaz di ko nuyu au passage ñu gis ni moom mu ne day pause pause bi nag ndax mel ni am na fu am na fu muy waxee

stratégie la moom wax dëgg yàlla stratégie la mais stratégie bu baax la ci làmb parce que roi tamit waroo nekk sax instant rek nga ne ci àll bi di war a wéyal ji roi chaque jour événement la nga ko war a programme moom loolu sax normalement mu toog may gars yi ñu ñu ñu ñu bëri seen biir moom mu xool parce que deux combats la bëri ci deux mois waaw kon nag loolu noonu du caaxaan quoi roi bu bëri c'est la première fois roi bëri benn saison parce que deux combats bëriwul lu muy am kon nag su defee loolu war na mën may gars yi ñu bëre mu xool fan la mën a jamaat parce que moom mooy di mooy décider. Ah, mais Balla Gaye ak Modou Lo lan gisee dégg nañ waa ñoom ñu ne sax dégg nañ ñoom Serigne Ndiaye ñoom ñëpp nee nañ moom na. ne Balla Gaye moo woon Lo ñoom loolu ne Balla Gaye moo woon Modou Lo. troisième fois bi ak Balla Gaye wallaahi troisième ko jëlee doon Sa Thiès bu ko Balla Gaye jëlee mu doon Balla Gaye mais troisième moom mu ngi Lo xam na la golo gën a xam kër gu bëri xaj yaay Modou Lo sax moo mu parce que xam na def nañ am jéem nañ ba sonn amuñ si benn pexe mais noonu lañ mën a wax bàyyee ba rek moom rek noppalu li ñu moo la mën nga ne bàyyi naa moom loolu moom wax dëgg yàlla kenn mën doq ma ko moom loolu côté boobu maa ngi ko si ne nii la nit ki boo gisee nit xam ne moo la mën da ngay bàyyi si loolu la bàyyiwul de. non ñoom daa na jël Balla Gaye ni kay na jël non moo loo koy xam deful yaa oustaz moom am na yoon du ko def sax aay aay aay boobu génnagut aaye Balla Gaye la mut am na aaye booy ñaa Ama Baldé mais aaye Balla Gaye moo wàccut wàccul de aaye Balla Gaye wàccul aaye Balla mu loo benn pexe si Balla Gaye benn pexe amu si Balla Gaye ah. wallaahi yaakaar bu jëlee trois trois trois trois fois naa la woon benn photo bi Balla Gaye daane Modou Lo ba xëy suba moo ko Aziz Ndiaye ñu maa leen photo photo boobu ñu def nii leen ko def la sax xamuñ ko boobu dañoo def nii boobu muy des na troisième victoire bi def nii ñoom ñaan ñëpp naa la envoyé photo boobu nga dugal ko biñ bëree daan ma loo ba xëy suba Aziz Ndiaye invité ñu këram ñu dem fa ñu def fa la troisième victoire bi may naan des na beneen kon beneen bi nag moom bu ko lu ñu too mën loolu am si àddunaam bëre Balla Gaye ko ko gënal mais mënul nekk bu daan Balla Gaye loolu kan àddina parmese bu ñaaw dootu mënatu ko mu bëre woon na ko kon moo mën ci làmb ci non non xanaa su koy man Balla Gaye day voyage yi wala Sa na ne Maroc mu soo koy wax mooy loolu koy bu ñëwee di ko wax daan moom daan maa mën côté Pikine bi. côté Pikine. moo loo fa mën. waaye côté Guédiawaye gii Balla Gaye fi ne de. waaw Balla fi de. kay loo waaye bana waxal moom avance mu bu duggee si moom day soppeeku xar kanam gi benn xar kanam ngay gis. waaw ah. yow Modou Lo Tapha Tine ak Modou Lo Balla Gaye bu la dàq. non Modou Lo Tapha Tine combat la mais du événement. combat nag waaye du événement. mais Balla Gaye non événement spécial àdduna di ko xaar xëy président sa koy xaar àdduna bi di ko xaar xalifa yi di ko seetaan ñëpp di ko seetaan. loolu Modou Lo Balla Gaye kese la moo doon waaw maa ko wax. comme bamante kilifa yi sax dañuy nekk seen biir néeg di ko seetaan kilifa yi kilifa yi laa wax kilifa yi du seetaan télé dañuy dugg si biir néeg di ko seetaan Balla Gaye Modou Lo kese la moo doon waaw. kilifa yi duñ la seetaan dañuy nekk seen. dañuy se duñu man mii sax du ma leen seetaan barke Alxuraan bëri na grand combat yi mag yow du ma ko seetaan neexut tafaatin Modou Lo neexut làmb dina fa am jël dana mën na fa am mais neexul neexul neexul mooy que ni ñoom ñaar seen bëri dafa xaw a robante bokkuñ buuxante dafay am naxante kenn juum daanu mais Balla Gaye Modou Lô balla la boo xamante ne jihaad la parce que Modou Lô li am ci àddunaam fayu baa si Balla Gaye ak Balla Gaye bëgg na ñëpp daan ko mu des Modou Lô loolu tax combat boobu di metti Modou ah li mu def nii man conseil bu ko ko jox baa baax na nañ nañ tee fintee rek mais buñ juumee mu dugg ci Balla Gaye ah, mais eh, ba tey ñu ngi doon wax Balla Gaye mi ngi INSEPS man mi sax ay nit dañ ma ciy interpellé Balla Gaye mi ngi INSEPS mi ngi INSEPS loolu gis vidéo yeeg yooyu noonu te Balla Gaye mi ngi fi. waaw ah, jàppoon ne mi parce que démb laaj na ma si yàlla xam ne bi ma koy wax xamoon fu nekk may leen est que voyage wul parce que ma gëj gis mais tey moom franchement moom mu nekkoon mais foofu na delluwaat fi lalu woon fan yi moom na delluwaat parce que état bi ma gis nii moom wax dëgg yàlla macha allah bu si mais classement bi démb gars yi ma sonal ay Balla Gaye Parcelles et Modou Lo ma leen bu leen neexee pour nga xam ne ñun Parcelles ñoo leen mën nañ ko classé Modou Lo Balla Gaye Goro Sock Youssou Ndour Franc fils de Balla ba si suuf ñoom gàkku de caatu da defar ñëpp dugg ñu xool waaye man man si biir ba ileeru gumba bi xamee buñ bojj ak buñ boxam dal fa ak daam seen fu ne ma fekk leen fa man kay yow amul lu ma si xaar ak xaj. du métti waaye jàmbaar la gis. buñ ko defee dañuy xam kon mooy géejawaay maa ngi dégg na commentaire yi neen dañoo fay bëgg a tàkkaar ñun duñ ma sa fay ci làmb bi njëkk ñu tëyee Balla Gaye moo ko daaneel à l'âge moom rek moo mës ñëw si roi des arènes tànte ko benn yoon ko si gone yëpp Sénégal dañoo gaaw a mais Balla Gaye li si làmb du fay de Tapha Tine na ko jàllul Modou Lo tànte na ko jàllul Ama Baldé tànte na ko jàllul boo ñaataam Balla Gaye moo ñëw tànte ko si gën a jafe mu yëkk ni ci daj dëpp gi ci gàllankoor gi ci quinze ans de carrière bi cent défaite mu jël ko ci moom kon tey xale yi bu Rewa Zane tey yomb na Rewa Zane tey amatul kilifa waaw Rewa Zane Rewa Zane tey léegi amul amul kilifa. amul kilifa fu ne lay fanaan. billaay fu ne lay fanaan léegi mu fanaan waat feneen. feneen waaye ba muy nekk. moom loolu ko yóbbaale. ni mu waaw ni bëgg a bëree bu ko defee mën na kaa yóbbaale di posé ko noppal waaye bu bëree rek jël ñu jël ko mais bu demee bu ko neexee day bëri yaa mu pos ba gars yi ne bàyyi na lam mu ñëwaat bu ko na kaa yóbbaale mais Rewa Zane bii amul kilifa ku koy bëree léegi nga ñàkk ngeen amul kilifa amul kilifa néewul fenn dëkkul fenn. wallaahi man na yàgg ñàkk bëre rek ñaay mi ngi soog di bëre ña deux mois dama ne la bu siy bëree di ko ñàkk. Uh-huh. mënul ñàkk tey côté performance. Uh, bii kay bu fa jëmee mën na kaa ñàkk waaye côté bi bu fi jëm see. géej waay kay roi bi moom bu fi duñ ko fi tànn mukk di ko ñàkk. incha allah boo ko laat da tant tànnee instant bi dana ko jël saa bu ko tànn dana ko jël bala ngay ko tànn dana ko jël. waaw maa la wax loolu. billaay mbëru yàlla bi kay bu ko tànnee jël ko dañ ko war a may chance mu bëree roi dëgg yàlla dañ ko war a parce que tamit rëg prouvé na quoi béy naa saa yoo xam ne léegi dañuy dégg diw da koo daan non diw da koo daan léegi tollatul foofu si làmb parce que kaw gi dafa xat mën loo ana bi muy jël roi Zane la ko Balla Gaye daan jël bu si année boobu la daan si même pas huit mois ay si si Bombardier donte Bombardier mag la mais laa ko mën a may sens ko na ko ko wala boo ñaa jël ko. les côté performance ni mu def Pikine loolu ba jàngat nga ci am. gis defalu naa ko moom parce que Modou Lo tamit defalu naa ko parce que Modou Lo man xam ne Modou Lo Ama ah, Baldé man Ama ah, Baldé laa faaloon moom boo ñaa bi it boo ñaa laa faaloon. wala moo tax yéen fan si Balla Gaye moo amul. la non loolu làmb amul loolu nit ñi ñoo neex rek mais làmb ku neex nga faral ku la neex man Modou Lo bëri na combat yu bëri yu mu bëri moom laa faral wallaahi azim. man Papa Sow moo doon sama mbër. mais gis nañu yéen ngeen dugal ko esat. non man Boña laa esatoo man Boña laa esatoo. te kan nga faraloon. Boña. budul daal ma faa ko ngir kanji. ah Modou Lo Boña. waaw ah, waaw budul daal ndax kanji sax xam nga mais lamb ku ne am nga droit far fu la neex bu ñu bëri wut ak sa mbër sa gox rek te man wax dëgg yàlla combat bu am daa damay am koo faral man ñëpp xam nañ ma si fii combat bu am damay taxaw ne kii laa faral. parce que man ragalu ma ni mu def Pikine da koo rafet. rafetlu naa ko parce que dafa jaayante Modou Lo dafa dugg si laamu ñu ne matul du mbër mu dugg Pikine raatale leen ñoom ñëpp daal leen koo fi mu ne man mbër la kon tey loolu bu ko defee dañ koy apprécier rafetlu ko di ko ñaan mu jik ko nag. mais ko sa gox. boo ñaa daa def na ko fi. niñ mu ñun boo ñaa lu ko si naqari waaw ñoo si si si moom laa mais li ko naqari si defetam bi na ko xalaat si loolu boo ñaa dafa daan géej waaye gépp daanaka wala yaa si mais démérité wul parce que xale la boo ñaa ñun ñoo bokk général si làmb daanaka te xool tey mi ngi dem ba royal am kër def lu ne loolu kay bu ko defee na sant yéen te ñun dañoo daan ma ñuy bëgg de kon boo ñaa moom na sant yàlla na xalaat sama janvier daaba ba mu daanee bàllagay sama bii bi daw barke alxuraanu karim ngeen dem barke alxuraan sama bii doon toog naa ñetti fan génn ma suñu barke barke alxuraan la ak ñaan yi ma ko doon ñaan moom ak akam mooma daal mais daal lu mën a xam mooy Boy Niang. parce que yaa doon ñaan Boy Niang bu ñëwee stade yàlla biir. da waaw yooyu yëpp dafa moom dal booy ko am gàllaaj la mais daal li ma koy conseillé mooy nag góorgóorlu war dem liggéey xam ne xale la moo ko ama yëpp lamb mi ngi seen kanam dañuy wax rek am na ñoo ne comment am na benn commentaire ma séance si YouTube moom képp ku mën a wax dalay saaga bu dee diine mu saaga bu dee l'islam mu saaga bu dee làmb day saaga commentaire na boo leen bëggee dégg la koy sonn. mais ñaan Modou Lo moom moo jaxase Pikine loolu. jaxasewul dara ay adversaire ñoo fa tombé rek mu ne fa mu jël leen daan leen démérité wuñ waaw parce que tey Balla Gaye mi mi ko të am ah, Pikine daat nañ ko xam nga moom nag moom fu mu sonalee gars yi ba sonal Balla Gaye bu ñëwee moom coowam jeex àdduna noonu yàlla bindee yàlla moo wane ne du may kenn lépp loolu la si jubloo leeral ndax tey ñi mënee may Modou am ah, solution si Eumeu Sène te ba Eumeu Sène Balla Gaye mënut am benn solution si moom noonu la mayee solution bu doy moom Pikine gépp liñ jaaxal Balla Gaye doo nga si mën daal muy Modou Lo fi mu ne nii bu rek la Balla Gaye barke arxuraan gëm naa ne bu toog boo ko tegoon si pousse-pousse yóbbu ko stade daan Modou Lo man loolu laa gëm parce que daa am solution si Modou Lo loolu day am ñun ñun mbëri dañ koy xam man mi fi ne contact na mbëri yoo xam ne ma nekk si nooyal nooyal su ma ñëwee maa man dama leen daan am na ñoo xam lu ñu yàmbalee ma ñoo mën lu ma ne si état damay day am léegi nag loolu nag mooy am si làmb tamit Balla Gaye daa am solution si Modou Lo Modou Lo am solution jàmm léegi xuloo bi nekk. non xuloo bi moom nekkul fii moom Cheikh waxoon naa ne fii xuloo bi du xuloo dara parce que xuloo ñu bëggante moom ku yóbbu wax si ndànk ndax ñu dañoo bëggante wax jee fi nekk rek mais ñun Balla Gaye la ñu topp moom lañ bëgg te Balla Gaye ñun ñoo koy daaneel xam nga Balla Gaye ñun la bëgg parce que tamit xam nañ ñu bëgg nañ ko te yéene nañ ko xam nga tey doo am xay xale yu mel ay fils de Balla ay ndigal mën a bëre macha allah nga leen saaga ñuy dem di ci dem si ay loxo rek te ñun nag loxo yu yoxee Balla Gaye yu ñu jigoon moo gën loxo yi ñu dem yeneen loxo yi ñu dem loxo bala Gaye yoo gën. am nañu bàyyi yeneen loxo ngeen yeneen loxo ñu noonu see dem léegi nag delluwaat suñu loxo patron moo ko gën quoi wax dëgg yàlla lii moo ñu gënal quoi ñun daal sëy bi moom bëgguñ mu tas ñun daal sëy bee bëgg a bëgg a sëy sëy bëgguñ mu tas suñu diggante ak Balla Gaye daal bëgguñ mu tas comme nag moom it mu ngi si dox tànk jàmm alhamdulilah rabbi alamin ku bëgg fu mu fanaan ak ku bëgg ko wete tey bunt bi di leen boole. waaw man moom bëggoon naa jubóo moom parce que dama ko namm quoi namoon naa ko trop. ma lan moo la manqué non bàyyi na waxtaanam dama xam ne fu mu dama koy daaneel quoi franchement moo taxit tey bi ñëwee dem xat-xale dugal na ma benn coup. ko jubóo bi daal namoon nga ko. non namoon naa ko parce que man moom lu baax moo ko ma si woo ma wuyu si la. bëri naa problème loolu nag may ko ma aussi jëm jëm ma wuyu si. ci loo nekk man maa ngi pare di liggéey rek gisoo ni ma mel ne génn mel la fanaan maa ngi daas fanaan mais comme dama jëm combat dimanche ah. damay wér ngànnaay ba dimanche jàll rek incha allah waaw. mais booy dañuy sóob rek dañuy tànn ku ne yaa ngi ut néew boo mën a rey rek mais combat yu métti kenn wëru ko hmm. gaa yaa ngi fi toog di déglu sa ñoom nag ku ne ngi di si may lijjanti di xool ba mu leer mais bu leeree ba nga jël dul mu lëndam rek waaw làmb moom kenn mënu koo daan te bëriwoo te bëriwoo ko déedéet ah. nañ jël combat yu ñu bëre ah. làmb ji nii la làmb moom mi ngi dox quoi mi ngi avancé Sadji na wax dëgg yàlla waaw nag premier pas yi tase ak ñëw taxaw mais gis naa Petit Lo mu takk jabar tamit pour la bi xanaa day pousse combat bi. ko combat bi amagul ah ma brise mer ci Petit Lo mu seetu trois mois ba pare. brise mer dana ko rey rek. Petit Lo mu seetu mois. Ah. brise mer ah, Petit Lo di entraîné nekk. ba ci lan xale la xamutoon jigéen bu soo may mënuloo damay denc soxna si parce que kanam. wala ma àll ko semaine rek nangu ko yóbbu yóbbu ko la ko Lagos moom xale la xale boo ko tàmbalee ni baaxul dafay jum xëy fa yàlla jël nga julli ma la maa ngi ñëw wala naa ah ma loolu daa bëri wax xale kenn du ko xale kenn du ko ñamal xaw ma lanu nawet heure bu xëy mu ko yeb mais pëti attention ku la jël si nekk bu la nam moo lay wax ni ngay toogee woo ma téléphone ah, woo ma conseil la moo Sadio Mané même Sadio Mané maa ngi maa ngi lancé Macky Sall defi wala Aliou Cissé bu ñu ko bàyyi ak jabaram ci nañ ko ko àll semaine ñu delloo ko mu dem entraîné ndax dañoo jëm si coupe d'Afrique te dañoo soxal mais fi mu takkee jabar baaxul de démb dégg naa sax na jabar ci yooyu nañ ci teel a wax mais dafa ñëw jaaru fa Idrissa Gana Gueye dégg moo sax jabar yóbbu nañ ci teel a suñu ay responsabilité mu dem jabar dañ ko ko semaine mu dellu toog ba coupe d'Afrique bi jeex suy vacance mu vacance ak moom mais nii nii bu ñu du caaxaankat billaahi wallaahi man noonu laa mayoon duñu ay caaxaankat mais koo su xas ba dugal jigéen ma fi nii jàpp naa asamaan si bu wàcc dama koy téye. mais gars yi dem nañ. dem nañ ko dafik bi en ah, Sadio Mané moom demul. Sadio Sadio Adama. est-ce que yóbbaale wu jabar si ñu ngi koy ko daal moom yàlla na ah, ki ñu yaakaar dem ba Coupe d'Afrique jéggi ngay takk jabar di ku rax da koo yóbbu. ah saa sama xel ñaaw na de. ku rax da ah. def ndànk Sadio lépp positif la koy defee Sadio mënul si lépp si positif lépp si positif la koy bëgg a defee mooy problème bi loolu la quoi bu noonu la defee lépp moom du baax moom dañ ko ñaal daal mu def si jàmm ñëw si jàmm mais changement na fi bàyyi ba dem ba ñëw. Sadio Euh, roi bi léegi comme takka sali tent bi nouveau marié cum mais daal daf baa jabar ji ba ñëw waaw bu bàyyee ba ñëw xelam gën a dal mu jël coupe d'Afrique bi si jàmm bu ñëwee na feetu ma saa nag ku xam Sadio Mané dëgg-dëgg xam ne Sadio yàgg-yàgg fii lay mujj Sadio du sama classe gii de sama classe ñu amee xaalis du soppeeku de saajo soppeeku de dégg nga Aziz Ndiaye dem lu wax Aziz Ndiaye nee na Sadio yow Sadio nan na système bi nee na jabar xale a pare xamal lan mooy problème bi. Hmm. Sadio daa takk sagar dégg yoonam bàyyi ko bàyyi ko fa. Aziz wax na jour la takk. zéro kilomètre looloo yow baax zéro kilomètre. takk sagar daa man kay naa takkaat sagar. yow est ce que du ma takk si ak buum sax. ak <laughs> kat ma jaaxal sax yow yaa jamaale yow. kon paa ba paa ëpp ma ne ah Fatma damaa ji ma bëgg jaaxal ah. ay ñàkk jëriñoo kolifay dëkk ah te mbëri mag géej waaye gis naa jubóo nga ak ñoom lool xamuloo seq ak ñoom. mbëri mag géej waaye ñoom Balla Gaye. ñoom kat. Balla laa dëgg nga ak ñoom de xamul lan la nag. waaw. ah yow tey foofu ngay papa sama doom sama xarit te booy yi ku ngeen bëgg a dëgg-dëgg sama doom nga ma la yaay yaa pël. yéen nga sama doom nga sama doom yéen bàyyi man dafa waree naa la ko fekk xanaa nga génn stade bi man xam la lay bañ ma attaqué la nga arrière. waajal bu baax naa la attaqué naa la daan si kàttanu yàlla. yow da nga maa mënul attaqué ba naan ma attaqué la yow da nga maa mënul attaqué. ba la faral digg sax xam nañ yow doo ma fekk fenn barke yonent bi. <laughs> xam nga may fekk rek. incha allah dina gaaw dina gaaw dina neex kon. maa la dàq bëri maa la ëpp doole te bu ma a jàppee nga xam ne maa la dàq bëri maa la ëpp doole waaye ñoo mëpp bëri dama koy dóor bu mu tëdd l'homme qui a peur sinon rien